السلام عليكم يا سنغال السلام عليكم عبد النبي رودينا جيجين شي عبد النبي ني ندير لي زياره ا دي ني يغل لي خامتاني مو سول حضره الجمعه لي مارس استاد امور باري كون خامني ادنا دخل تجانيا ا امنا فيب فو دمي سنغال امنا فا ا سيكسيون بو فا نيك سيكسيون بو نيك امنا بس بو اي سي اني بي واي نك بو ني تيج دنج كوي فاندري بيغا خامتاني مو سوستي وير كور بي تومبي لين مارس journée internationale de la femme kon suñu mbokku jigéen ñu ngi leen di woo di woo ñëpp nag rawatina njabootu Seydi Hadji Malick ju jigéen ji yéen lañ jiite suñu woote ak suñu première dame ak mboolem jigéen bu nga xamante ni moo xam ministre nga moo xam député nga moo xam maire nga moo xam sax directrice entreprise nga ñëpp ñu ngi leen di woo di waa fondation Mame Faye Wade Wele suñu rakk suñu sëriñ jiite ko soxna Umu Asi Mansour ñu ngi koy ziyaara di ko woo di woo waa fondation rawatina nag bépp kalbaas bu nga xamante da nga nek ci gox goxaan yi parce que gox bo dem jigen ñang fay nek di dur seen war nek ay jambar fam chic bàyyiwuñu kenn fam médecin du Sénégal bàyyiwuñu kenn ñi ngi wo ñep ngeen ñew teew bëss bobu ñu and bak suñu borom ñaan yalla suñu borom mu jéggal ñu suñuy bakkaar ñaan yalla suñu borom mu defal ñu sutura ci suñu Sénégal ñaan yalla suñu borom di sutura suñu njaboot ñaan yalla suñu borom mu def sutura ci àdduna yépp ci barke ndir sallallahu alayhi wasallam di ñaanal ñepp jamm nak di sak ngeen ñaanal ñuko di ñaan yalla kepp ku nga xamanteni ya xam fo mënta jóge ba ñu ci bëss bi ñu lay ñaanal yalla def nga ñu ci jamm ak salam del ci jamm ak salam ñi ngi wo aussi fédération Tidiane Dakar et banlieue bayu ñu kenn fepp daayira nek mo xam daayira kiram mo xam ahmadiya ñepp fi nak mom ma ngi ci inviter sunu yaay ndey Fatou pri mi nga xamanteni moo jiite fii Ahmadiyya ci Biscuiterie yi ñoo ngi woo daayira Muqtafina Fillah bi nga xamante ni sëñ Moustapha Al Amin moom mooy seen sëriñ maa ngi woo waa daayira Mutahabina bu sëriñ Abdou Sy Mansour ñu ngi leen di woo jigéen ñëpp bu kenn des fenn maa ngi woo aussi suñu sopp dabaax daayira sopp dabaax bi nga xamante ni ñu nga nekk ca Dakar maa ngi leen di woo di woo si ñoom yaay yi nga xamante ni ñoo nekk daayira asfiya yi ñu ngi woo ñëpp bàyyi ñu kenn su ko defee ñu yiwal te kenn kuy ñëw na nga indi cent franc cent franc yi nag liñ koy dooyee mooy social boobu ñu wax fa lañ ko jëmee ak koo mënti doon rek loo mën a am su la neexee nga indi ëpp loolu mais ñun cent franc la ñu laaj. cette année nag dañu am ay invité yu spécial muy les Moustarchidine wala Moustarchidaat ñi nga xamante ni le responsable moral di suñu Moustapha fas di suñu sëriñ di suñu papa ñi ngi invité bépp jigéen bépp jigéen Moustarchidine wala Moustarchidaat ñu ngi lay invité incha allahu rabbi ci bés boobu ñu ànd ci organisation ba ñu ànd ci bàkk suñu borom ba ñu ànd ci defar bés ba mu baax ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi di ziar ñëpp. la ilaha illallah la